kon xam nga fu ñu jàll. ba tey mm-hmm. ci ci loolu la rek parce que day andi sama beneen question muy li jëm ci wàllum sarax. Mm-hmm. parce que nga ko wax léegi sa biir wax ne ku lay tuurloo deret wala ku lay mm-hmm. nangam parce que sarax. ñun bokk ñun sénégalais nuñ ko fonkee gëmee ko. il faut nga wax ñu ne noonu lay demee. buñ demee sax banaan boo saraxee sax mën naa puus sax sa may na laa may gudd fan. dañ la koy wax. dëgg naan la boo saraxee lii mën ngaa mën nga say fan mën naa yokk alors que boo wëlbatikoo ci ñeneen ñu mel ni yéen sëriñ si tamit. Mhm. day naan yàlla du la bind ca fanweer fan rey la ci fukk ak juróomil ba. maanaam tey maanaam ba nga juddoo rek yàlla nee na yow le deux bi nga war a génn àdduna. Mhm. kon sarax mën naa fexe ba le deux boobu yow doo ko dee nga dem dee le le dix-sept wala le mhm. wax nañ ñu loolu ci sarax. wax nañ ñu ne sarax. tuur deret ñu ne ñu dafa baaxul ci sarax. te yéen ñii yëpp gën wàll yëpp ku fa dem bu ñu lay ñaanal dañ la reyloo xar mm-hmm. def ko ay saam man moom du ma ah? def loolu doo ko def yow ah. waaw mais am na ñu koy ah, dëgg la am na am na ñu koy def donc sarax yan lañ war a def ñun ak sarax lan lay jëriñ ci doomu aadama mm-hmm. maanaam tey man soxla ma pour ñëw ci yow mm-hmm. pour saraxe dëgg la mën naa xëy suba rek am envie saraxe ndeysaan laaj nga laaj bu solo waaw loolu am na fukki mbir ak juróom mm. yoo xam ne ku koy def ku nekk njariñul sarax la mu bàyyi ko ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko ci mag ñu baax ñi sarax ci boppam la ca njëkk mooy yadfau llaahu anwaahan min al bala képp kuy saraxe hmm. yàlla dana la fegal mboolem xeetu nattu yëpp am na koo xam ne yàlla da koo nattoo gàtt wërsëg waaw kooku buy saraxe suñ borom dana dox digganteem ak lool am na mhm. daf koo nattoo maanaam mu doon koo xam xat dafa xat ci nit ñi. Mhm. buy saraxee day dem ba yaatu ci nit ñi. dafa siis. waaw. Mhm. benn mhm. waaw beneen bi mooy bu fekkente ne nit ki dafa am alal. ba noppi alal ji amul barke. léeg-léeg gis ku bari alal lool mais day dem defar dara lu baax ndog ñëw dal ca sarax da koy laabal ba ca des mooy insiraahu sadri waraaxatul xal bi maanaam day may nit ki bu yaa xam nga dënn bu yàlla lu baax ci nit la mhm. mën a tenir dara mën a téye mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne laysa sadidu bi surha innama sadidu man yamliku nafsu indal xadab nee na jàmbaar du koo xam ne problème day am rek mu xëtër xëtër ne maa koy régler maa koy faj mhm. nee na jàmbaar dëgg mooy koo xam ne dafa war a mer dañ ko def lu ko naqari ba pare mu téye boppam beneen ba ca des mooy dawaaun dawaun lil amradil jasadiya mooy li nga doon wax léegi maanaam mboolem feebar bu nekk ci nit hmm. sarax mën na koo jeñ mën na ko wéral waaw waaye muy nag ban feebar wala ban sarax boobu nag moo jar nga dem ci sëriñ boo xam ne xam na ko mu génneel la ko beneen ba mooy am na beneen feebar boo xam ne du nekk ci yaram mais ci xol lay ne dawaa un li amradil qalbiya maanaam feebar boo xam ci xol la ne hmm. feebaru xol mooy kiñaan wala bañ nit loolu yonent bi sallallahu ko waxoon feebar la yonte waxoon na ko dafa hmm. waxoon ne dabba ilaykum daa ul umam min qablikum al ashad wal baxda nee na gis naa ne sama xeet ñaari feebar dafa dox jëm si si ñoom bu dee jamono ji mën nga xam ne agsi na muy iñaan ak bañante sarax day dox sa diggante ak loolu hmm. beneen ba mooy mutaharatun lil maal dafay baril dafay laabal sa alal ba noppi baril ko ful ful ko day mu topp nag mooy nit ñu bari léeg dañ koy wax maanaam da gis ko daal la ñaanal ma damaa bëgg a baax boo bëggee baax del saraxe dañuy wax ne yuwassilul abdi ila al haqiqatil birri képp ku fonk sarax dana la àggale ci dayob mbaax mm. beneen ba mooy mm-hmm. di nga doon koo xam ne mm-hmm. eh, malaayika yi dañ lay ñaanal mm-hmm. beneen ba ci des mooy da doon gëm yàlla ba nangoo jël sa alal maanaam ci misaal jël àddina jënde ko àllaaxira maanaam parce que li joxe tey waaw yaakaaroo ki nga koy jox fay la mhm. mais yaakaar nga ci bu ëllëgee suñu borom fay la d'accord na kon yooyu pour àddina la mhm. bu dee bu yowmal qiyaamati akbar mhm. dina tax suñu borom du la mere est dana tax suñu borom farala la say ñaawteef yowmal qiyaam genn ker du am gudul keroog ñi doon jàng alquran ak yonantu bi ak ñi doon saraxe est beneen ba ci des dana am danañ woote dal ne ana ñi doon saraxe ñu jóg taxaw xam nga loolu suñu borom lépp lu ñu def ci àddina misaal la. Hmm. dana neex lool ci mbooloo mu toog. ñu daal di woo kenn koo xam ne def na loo xam ne ña toogoon ñëpp bëgg nañ ko ñu ne kii moo ko admis mooy premier examen mu jóg taxaw ñëpp tàcc ko waaw waaw suñu borom nee na danañu woo ne ana ñu doon saraxe su defee mu jóg waaxu jaati buntu sarax dugg aljana xamoo ne aljana juróom-ñetti buntu la buntu bu njëkk ba mooy ñiy julli ñoo ciy jaar hmm. beneen buntu ba ñi doon jihaat ñoo ciy jaar beneen buntu ba mi ngi tudd rayaan ñi doon woor ñoo cey jaar hmm. beneen buntu ba ñi doon saraxe ñoo cey jaare dugg beneen buntu ba ñiy wàkkirlu ci yàlla ñoo cey jaare dugg beneen buntu ba ñi doon tudd yàlla ñoo ci jaar di dugg. wala ñu doon jàng alquran wala ñu doon jur ci yonent bi sallallahu alayhi wax lu am solo beneen ba mooy ñi doon ñi baaxoon ci seeni i wayjur dañ cey jaar dugg. Hmm. ba ca des mooy ñi nga xam ne dañ daan wakiirlu ci yàlla. sawara juróom-ñaari buntu la. sawara juróom-ñaari bunt la waaw ba ci njëkk mooy <laughs> jahim am na fu ñuy tuddee jahannam am na aawiya am na lacha am na xutamma am na shahir am na saqar mooy turu bunt yi mooy bunt yi mooy bunt yi sawara ah jaxal ah, safara. safara waaw bu dee. jaxal ci gën a bon. waaw jahannama ak saxiir ak lasaa. non safara moom bul ñu wax ñu bu ñu wax. waaw damay wax ne waaw loolu suñu borom dafa baax dugg lu ñu def moom ba dugg fa garaaw. moo tax sarax lu solo la nag. bu fekkente ne ci nit ki. nit ki nga xam ne dafa war a génn sarax bu ko neexee mën na génn sarax ci lu ko soob ñaan waaye nag bu fekkente ne ci sa mbirum bopp la benn ci sa wàllu wërsëg comme ni nga ko waxee mhm. waa ilaa ci sa wàllu dik loolu am na loolu war nañ koo gëm ci nit ki ci boppam sarax waroon naa mën a dund lii mu saraxe mu puusal ko lool waaw bàyyi yonente bi alayhi salaatu salaam looloo ko dundal mm. waaw maam yonente bi alayhi salaatu salaam ku ñàkkoon njaboot la mm. amoon na alal ñu xas ko ñi ne benn la am ñi ne amul mu ñaan yàlla fanaanee ñaan ba bët set ne ko fukk rek laa ñaan fukk xam nga lu bari la boo mayee fukk ki ma lay sant mooy dama ci jàpp kenn rey keroog bi mu bëggee rendi Abdullahi téeméeri giléem lañ def sarax mu dund téeméeri jigéen giléem téeméeri giléem la ñu rendi par dix dix lañ doon rendi ba mat saa ñu jàngee ko ba bàyyi yonte aleyhi salaam muy Abdullahi moo tax yonte bi daf daa wax ne man maay doomi ñaar ñu bëggoon a rendi waaw moo tax léeg-léeg nit waaw nit dina feebar feebar boo xam ne dafay def boppam fidaaw fidaaw mooy man na jël am xar wala ab gàtt ginnaaw buñ ko xoolee ba xam lam war a àndal gàtt boobu bu ko rendee hmm. bakkanam lay daal di yóbbu daawoo gis mag ñi di jël xar wala dara wala ak jur di ko yeew ci seen biir kër di ko fa bàyyi hmm. di ko bàyyi ci biir hmm. bu ñu demee ba benn jamono ñu gis ci gàtt yi ñu yeewoon ci biir am bu ca daanu donte ba ci gën a baax la ba ci gën a ba ci gën seer la moo ci moo ci moo ci dee dañuy sant yàlla ndax dañuy xam ne lii mënoon naa doon luy jëm si ci ñoom hmm. moo tax ab yar baax léeg nga génn sarax waaye toujours nag li am solo mooy képp ku may loo sarax donte sarax bi dafa jaar ca wàllu rawxaan hmm. wala ca wàllu rab la hmm. lay xam xamee boo koy génn defal sadaxatan li wàcci laa sarax boo xam da nga ko def ngir jëm yàlla kon saraxut deret yow contrôle ko rey deret rey ray bi ci nga benn rek la nit war a def. mooy bi nga xam ne daf ko def. ginnaaw bi mu rendee. waaw buy rendi mu tudd suur suñu borom. ne lii maa ngi koy def ngir jëm yàlla. bu fekkee ko war a jot boppam la ñaan yàlla. mu may ko ci fan fanu gudd. waaw waaye bi ma contre mooy ki nga xam ne. day rendi pour jinne dafa rendil ay jinne loolu alxuraan moo ko bañ ay xamb yeeg ay ndax li alxuraan bañ moom du naa ko li nga ma wax nii mhm. moom mooy rendil li xayrillaa kooku dama aada doy na nga doon wax rek laa doom déglu man mhm. saraxu rendi mënul mhm. ñàkk ci doomu aadama mais bu fekkee di rend di jox ay ay ay ay sacrifice ay ay jinne ay yooyu xaraam na xaraam na waaye bu fekkee yàpp ba da koy jël saam ko saraxe ko mbaa nga ci ay ndab ceeb yu neex gaa yi ñëw lekk ceebu yàpp bu baax sarax boobu mun ta xaraam déedéet nangu naa mm-hmm. déggoo naa ak yow ci loolu lu jëm ci mbirum sarax mm-hmm.